colom bi kat xam nga ñun dañu ñaan yàlla jaar ci kaw colom bi jàll comme affiche bi ni mu demee rek affiche Sénégal colom bi Sénégal nekk ci kaw am nañ yaakaar ci kattanu yàlla ak yeneen ci bëgg barkeb Sëriñ Bamba ne dinañ qualifié am na ay sarax yu ma war a def dina am lo xam dina dinaa ko yeew ñëpp gis ko waaye benen bi dama koy neub bañu football ba ba qualifier ba paré bu ngeen fi ñëwee ci kàttalu yalla yonent bi dina leen won lima def ndem sob na yàlla yonent bi seigne touba am nañ ci yaaka ci yalla senegal Colombie nee senegal dina qualifier am nañ ci eh, yaaka am nañ ci am na nga ci yaaka buma génné liñ ma won pour ma pour ma pour ma def ko kon fu nekk ni dana melni combat yekini mbak Balla gay fu mu nekk nii munoo wax ñaata ñaata lay nekk. déedéet nga waxee woon kële déedéet am naa daal yaakaar ne Sénégal dana am ndam. léegi sarax yi da nga ne ñaar la benn boy na. bu ma dikkaloon léegi ñu ne ma nangam la léegi ma wax leen nàngam la waaye am naa yaakaar ne man Selbé ndoom li ma war a def la ma war a génne ndem soog na yàlla yonent bi sëñ Tuubaa su ma ko génnee Sénégal dina am ndam te am naa ci yaakaar ci yàlla. li nga war a gis ko laa war a yeew teg ko mu taxaw duma ko reyagum du lu ñuy rey duma ko reyagum leneen li sama sama vie privée la déggo déggo li ma la wax Colombie ak Sénégal dana mel ni diggante Balla Gaye Yékini damay wax ne incha allah colombiens yii di wax bu ñu yaakaar ne dañuy dóor sama Sénégal man Selbé Ndom d'accord mais buñ ko xalaat incha allahu rabbi Sénégal dina qualifié incha allahu lañ ma woon de xanaa ma ñàkk koo def. d'accord léegi léegi sarax yi jot a jàll nekk am na ku ci jàpp kii États-Unis kii France mais gëlëm bi ndax amagul parce que gëlëm moo gën a cher. amagul ku ci jàpp. amagul kenn ci jàpp buñ ci jàpput. bu ma amee ab benn seen or bu ndaw ma jaay ko jaral na ma tay sama këyitu gën ndax fi mu ne nii coow li dafa maa topp kat yaasin jaral na maa joxe sama këyitu kër tay la ko am ki sama gileem gii teg ko li ma ci war a saraxe ma saraxe ko jaral na ma ko sama réew jaral na ma ko ndax fi mu ne nii àdduna bi yëpp man la ñuy déglu ñuy wax bëri nañu coow li daf maa topp ñu may woo yaa ko yaa ko seede sànq. léegi naka la naka naka lay demee sama gileem bi parce que nee nga duñ ko rey duñ ko topp. du ma ko rey dama koy yeew teg ko dafa am lu ma lu soxla ci moom rek dafa am lu ma gis ci tànkam yooyu. dama koy teg ba match bi passé ma doog ko saraxe ci kàttanu yàlla yow bi taxaw laa ci soxla bi yoon bi yoon tuuruma deret wala bu may tuur deret tamit du lu may wone d'accord léegi si coupe du monde en général Sénégal est que gis nga ko ci mu man damaa bëgg Sénégal jël coupe man bu nekkee sama xol bi doom fii li li fi ne xam nga mën a gumaa wax euh, li ma gis ci kattanu yàlla ah am naa ci yaakaar ci yàlla yu tibi barkeem sëñ mbàmba Sénégal dina sori waaye man li ma li na sama mébét dëgg dëgg dëgg coupe tegu tegu ci loxo sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp man mooy sama mébét nee naa leen lépp lu ma gis li ma leen ñaan nañ ma ko may damaa ñaanoon ne nañ ma dugg ci kër goo xam ne dina calme kenn du ma fàtt kenn du ma sonal bu ko defee ma concentré wu ci sama xéewal réew parce que moo ma ñor dara ñoruma saaga yu may saagaal wax ju bon yi may wax daraa ma ci ñorut xam nga li ma ñor mooy sama réew muy Sénégal fier je suis fière d'être sénégalaise man maa engagé wu solennellement loolu ci président laa ko déggee xaw ma lan mooy solennellement waaye damaa jël sama engagement sol solennellement pour jàppale sama équipe jàppale sama réew man moo ma ñëw li ma war a def bu soobee yàlla yonent bi ba ñu ma ci ba joxe sama kayitu kër pour am sama gileem gi teg ko ak meneen xar ma ma war a jënd la may soxla ca xar ma mooy privé bi mooy mooy la may la may nëbb bu paree nag ci laa ne wax ne lii lañ ma won ma def ko ca wàllu xar ma gileem ga moom duma ko rey dama koy teg di lancé waat appel ci jaamu yàlla yi adduna bi yëpp bàyyiwuma kenn ku mën a am volontaire pour sa dëkk gëmal ne bëgg nga sa dëkk defaloo ko Selbé sa bopp nga ko defal Sénégal mooy sa dëkk Sénégal rek nga am bàyyiwuma benn réew man nag ñaanuma kenn pour man sama dërëmu bopp ndax yàlla teral na ma sant naa yàlla li ma gënoon bëgg sama àddina mooy dem màkk ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def naa ko ñaari yoon kon sant naa yàlla jullit si yonent bi ñi nga xam ne nag dañuy wax Selbé comédienne la ñoom la rek kenn ku nekk nekk sa dënn bi ngay génne di ko jëmale ci keneen Selbé talu leen damaa yaakaaroon Sénégal bu demee ba dem coupe du monde fekk yeneen réew kullu sénégalais dana ci jàpp fukki loxoom ak juróom ñaar xale bu ndaw ba sax dana ñaanal Sénégal pour Sénégal mën a indi coupe bi fii waaye jël benn doomu aadama ciblé ko ah yaa malikal mulk yaa man jalla an hawadin ilham jami al wara yaa haadiyan rada foofu rek laa koy teg